wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen ndokkeel di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu nangul ñu suñu jaamu yàlla te fulal ñu ko jéggal ñu suñu rëcc rëcc te soppil ñu ko ay yiw ñu ngi nuyu kilifa jataay bi yëpp Euh, fas yéene dellusiwaat ak yéen àggale mottali waxtaan bi nga xam ne moom lañ sumboon tàmbali woon ko ci njëlbeenu koor gi mu aju woon ci xam-xamub miraas ba waxtaan yi jàlloon waxtaane woon nañ lan solos xam ci alquran ak lan mooy solo xam-xamu miras ci sunna si bi sallallahu Alaihi wa sallam ak lan mooy solo xam-xamu miras ci salaful umma ak ul muslimin naka noonu itam junjoon nañ ay borom ay sahaba yo xamne ñu ñu ko won nañ ci gi ba ñëpp maase nangul leen ne ñi kat ñu ko lañ ci fann gi kon su ko rewé sun waxtaanu tay may dañuy ñew ngir motali tomb yi nga xamne mom lañ jëlal ngir fasiyene ko waxtaan ak yeen tay mottali bi incha allah bu fekke waxtu yu may nañ ko ginaaw biñu leeralee xam-xamu mirage ak dayo bi mu am dana ñëw nag leeral nidaamul miraas bayna al al jaahiliya wal islaam naka noonu itam buñ ci jógee danañ leeral masaayal irs fi islaam bi maanaa ndono ci lislaam yan xeeti ngëneel moo ci nekk bi maanaa eh, ban daya naka noonu itam buñ ci jógee danañ ñëw ci xikma bi tax suñu borom tabaaraka wa taala ëpplante góor ak jigéen ci wàllu miiras awalan dañuy tàmbali ne ci njëkk ñi nga xam ne ñoo nekkoon jaahiliya ci arab yi ñoom di seen miiras ni ñu doone mooy daawuñ doon loo jigéen daawuñ doon loo gone ki ñuy donnaloo daal ki ñuy jox alal daal mooy koo xam ne am na kàttan te naa xeex am na kàttan te mën kon ki nga xam ne amul kàttan doonte góor la waaye amul kàttan ci mën a xeex dafa nekk gone wala mu nekk jigéen bu waay juróom faatoon wala kenn ci ñoom faatu kooku duñ ko jox ca alal ja la koy nett li koy la koy la eh, mooy yi nga xam ne ibnu jarih moo ko nett li jël ko ci ikrama ne ku ñu wax ummu kajja ak bintu kajja ak saalabata ak aws ibnu suwayd ci waa lansaar lan bokk kenn ki moo nekkoon borom kër kenn ki nekk baay tax ba borom këram faatoo xummu kàjje dafa dikk ca yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ah, sama borom kër bi dafa faatu bàyyi na maa ki doom eh, waaye doom yooyu mu bàyyi nag kenn doonalu ci kenn doomi ndaw yooye lu tax kenn lu ci kenn mooy bàyyam bu ndaw bee nga xam ne moom la bàyyi dafa wax ne yaa rasulullah eh, Euh, kii nga xam ne dafa faatu moom dafa bàyyi ay gone yoo xam ne mënuñoo war fas ay xale lañ mënuñoo xeex mënuñoo dëbbante xeej mënuñoo def dara ñoom dañ leen a jàdd rek kon kay waruñ leen a jox ci ndonole dara ah yàlla suñu borom tabaaraka bi ba wax ci seeni mbir suñu borom daal di wàcce ci ñoom aaya bi lirrijaali nasibun mimma taraka alwalidaani wal aqrabuun wa linnisaai nasibun mimma taraka alwalidaani wal aqrabuun mimma xalla minhu aw kasur nasiban mafruuda yàlla nee na góor am na cër ci li ñaar way juróom bàyyi wala ay mbokkam am na cër ci la ñaari waajuram bàyyi wala ay mbokkam bàyyi ko moo xam mu néew la wala mu bari mu nekk ak cër boo xam ne suñu boroom moo ko farataal tudd ko ci kon su ko defee aaya boobu ñu ne loolu mooy sababu musul bi soo defee kon loolu a ngi noonu benn baa ngi noonu mooy jaahiliya bu njëkk daawuñ doon loo jigéen daawuñ doon loo xale ñaareel ba mooy lii nga xam ne moom la ñuy wax atabanni mooy adopté adopté maanaam jëlul xam ne juróo ko nga adopté ko doomoo ko loolu day ci jaahiliya dañ ko daa jëfe ne képp koo xam ne adopté nga doom da ngeen donnante waaw da ngeen donnante te bu xare jotee dana leen dimbalante da ngeen jàppalante ci wàllu xare waaw kon maanaam góor ñi daal fekk na beneen góor bu xare. mu doomoo ko adopté ko ne kii sama doom la ku ca faatu ñoom ñaar danañ doon nante loola lañ daa doxal ci ak jaahiliya lii di adopté maanaam lii di attabani nag njëlbeenu lislaam doxoon na waaye bañ demee ba ca ginnaaw dañ ko ca daal dindi ndax Abdullah ibn Umar mi ngi nettali na Zayd ibn Xaarisa nga xam ne moo nekkoon bàyyaal yonente bi sallallahu ko wooyee lu Zayd ibn Muhammad lañ ko daa wooyee ba suñu borom tabaraka wa li aabaihim huwa aqsatu inda allah ñu daal di dindi aaya boobu tabanni ci ak jaahiliya ci wàllu tabanni dañ bokkoon na ci itam li nga xam ne dañ a doonante ci wàllu jaahiliya mooy almuwaalaat almuwaalaat loola sax boo demee ci yenati mazahib yi am nañu koy saxal ba léegi waaye li ci al jumhur ñoom dañuy dàq loola almuwaalaat mooy ci jamono jaahiliya kenn daal da xool kenn rek nga ne daal lëkkoo na ma ak yow xaritoo na ma ak yow fasante na nga xam ne dam bii damm ko sa deret mooy sama deret xadimi adbu ko ku ma song mooy sama song silmi silmu ko sa jàmm mooy sama jàmm wa xarbi xarbu ko bu sama xare mooy sa xare tarisu ni wa arisu ko danga ma donn danaa la donn wa tansuri xam ne loola ñoom ñaar ña waxante loola siñeente loola ba accord yooyu mat ku ca faatu rek morom ja danga koy daal di donn ah moo xam ne da nga loola nekkoon ca njëlbéenu lislaam ñu tuddee woon ko xalif wala ñu tuddee ko xaqit wala ko muwaali wala ñu tuddee ko adil wala yi noonu waaw ñeenteel ba bokkoon ci alxijoor waaw alxijoor mooy ginnaaw ba lislaam dikkee nag jullit ñi daanañ donnante daanañ donnante ci sababu xijoor mooy ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mbokkan mbokkale jël benn muhaajir mbokkale ko benn ansaar hmm? loola dañ daa nga xam ne al muhaajir bu bàyyi ñaari mbokk nga xam ne kenn ki muhaajir la kenn ki di muhaajir kon noonu la day daal di nekk ci lil muhaajir waaye nag ki nga xam ne gàddaay du am ca noonu la moo tax ابن عباس رضي الله تعالى عنه آية إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آروا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا الهجرة بمعنى بكرة نرى إيه خمنا دانا لوقتي ديجنتي جديد maanaam kon jullit ah, ah, ñe juróomee ba mooy li ñuy wax alwasiya jullit ñi la njëkk yonent bi sallallahu alayhi wa di gàddaay kenn ci ñoom bu fekkee faatu mu ngi koy dikkal maanaam toll ci jamonoy sukuraat dadaa séddale alal ja ci ay mbokkam ak ay jegeñaaleem ak ay doomam ak ñafa teewoon nu ko soobee rek ak nu ko bëggee ميراثا ووصية وقرأ القرآن بارك من كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقي بارك الله فيك لأن يموت تي أي بي تي وصية لا على سبيل الوجوب أو على الندب بآية ميراث واتيانك آه، أي بي لا يفعل لكم نكون نتي بخزي toll ci jamonoy sukuraat wasiya waajiba rek la mën a def mooy alalam moomoom ñetti xaajam moomoom ñetteelu xaaj ba mën na koo séddale ci képp koo xam ne koo doon na ndax yonent bi sallallahu alayhi nee na laa wasiyata li waarisin bu dee masab ahmad nag mooy lu dul ne way warase yi dañ koo wéer waaw juróom-benneel ba mooy yàlla suñu borom tabaraka wa taala dafa digle an yursaqa min at-tarikati man xadara qismatuha mimman laa yaris min zawil qurba wal yataama wal mooy suñu borom nee na bu fekkente ne ñi ngay teg alal ji di ko seddale ñi nga xam ne ñu ngi fa teewoon ci ñi nga xam ne waruñoo doon na nga xam ay jege ñaar lañ doon dañoo bokk ci zawil arham wala ñu nekk ay yataama wala ñu nekk ay masaakin nañ leen sédd ca alal ja loolu alquran ne wa isa xadara alqismatu ulul qurba wal yataama wal masakin farsuquhu minhu wa qulu lahum qawlan maxrufa kon bu boobaa des na leen may ca tarika xam ne nag way doon yi ñoom seen xol da cay sedd ñoom ñëpp ñoo cay maase d'accord waaw xusu buurika lakum maanaam jël leen lii may leen ko kon nga gis nga annizaamul irsi bi maanaam ak tadarruju nisaam gis nga maanaam noonu ni nga xam ne noonu la def tadarruj bi maanaam di dugg par ndànk di dugg par ndànk ci diggante aljaahiliya ak lislaam bu fekkente ne nag ci jamonoy jaahiliya lan moo teqale diggante doonu dëgg-dëgg doonu ak lislaam lan mooy seen différence bu dee alxudaama arrumaan seen ndono bokkut ak lislaam ndax ñoom bu kenn masaan faatu rek dañuy wut ku ñu wuutal buñ ko wuutalee na ko ndono jëpp yaa ko moom alal jëpp yaa ko moom mooy koo xam ne nag moom ka ka faatu mooy ka tànn ku ko neex ci ay doomam wala mu tànn ku ko neex ci kenn ku man doon rek waaye nag ci sartum na ci giir ga dëppoo ñu ne ah, diw mii kat tànn ginnaaw tànn na ko kat kooka mooy ki nga xam ne mooy doonu alal jëpp nag waaw nga xam ne kooka mooy aar njaboot ga bu xare jotee mooy jóg yu demee noona noonu la waa Rumaan daan doxee ci wàllu miraas bu bu dee ñoom naka la ñu doonale ci taxawal xalifa koo xam ne mooy wuutu néew bi waaye ñoom nag loola dañ koy wut dañuy wut qaadi bi maanaam dañuy dem ca qaadi boo xam ne mooy atte atte ba waaw du ne ki faatu mooy wut ki nga xam ne moo leen moo moo moo leen di doon bu leen doon nag ci al umma al qadima ñu jublu ci nag euh, yahud ak euh, rumani yi ak turaniyu yi ak kalandiyu yi ak ñaar yi deme noonu ak ci arab Euh, ñoom seen doona naka la naka la mooy ki nga xam ne moo ci gën a nekk xale maanaam ki nga xam ne majeur majeur xale la xale bu ndaw la ko bu faatu amee moom lañ jox alal yëpp mu daal di koy féetewoo nga xam ne mooy jël alal moom moo ko noonu lañ daa doon bu dee al al qudaama ñoom naka lañ doon ne mooy dañuy xool ku gën a amum xel ca mbo ca mbooloo ma ca ca njaboot ga ku ci gën a yeewu gën caa jub gën caa kii kooku moom la teg palaasu ka faatu mu la jël alal ja daal di koy féetewoo soo defee kon gis nga loole ni mu wuutee ak euh, digganteem ak digganteeg lislaam ah bu fekkee ne dafa ñëw ci lislaam nag yàlla sunu borom tabaaraka wa taala moo tëral ndono ni ñu ko ci sunu waxtaan yële bi xikmatihi wa ilmihi mu daal koy séddale ci ña ko war a moom gën jaa rafeti séddaliin ak gën jaa mati mu daal di indi aayaat yoo xam ne moom la ñuy tuddee aayaatul mawaaris nga xam ne dafa matale lépp loo xam ne lu ñu war a séddalee la yonent bi ci sunu borom tabaaraka wa taala jublu ak nan lañ ko war a àtte lislaam yoobu ci dafa daal di ñëw tëral ay xawaaniin ak ay tawjihaat yoo xam ne tudd nañ ko ci alxuraan nga xam ne ci lañu war a tëral miraas mi xawaaniin yooyu benn xawaa benn xaanun bu ci xëtt rek xawaayid ma daal yàqu bu dee góor la mu war a am bu fi doom nekkee la baay war a am bu fi doom nekkut la baay war a am jabar li mu war a am bu fi doom nekkut la a am bu fi doom nekkee la mu am yaay la mu am du ñaari mbokk ak ñetti mbokk xawaay ne yooyu mu daal koy tëral mbam leer nañ nañ ci boppi nit bu ñëwee ci masaayal irsi fil islaam noonu ci lislaam yan ngëneel la am ah, bu ñëwee ci miraas mooy juróomeelu ponk bi ci arkaanu tarika xam nga nit ki lim faatu bàyyi ko fi am na ay mbir yu ci aju mbir yooyu ca aju nag miraas moo ca mujj waaw miraas moo ca mujj su ko defee miraas moomu nag mooy taxaw alaaqa bi maanaam mooy organiser diggante relation bi war a dox diggante mbokk yi waaw ndax miraas tasriicun maaliyun lahu ahdaafun iqtisaadiyatun wa nafsiyatun tusaadu ala taqwiyati awaasir al usrati miraas ab lésilaas maanaam aw yoon la woo xam ne ci la nit ki mën a jaar ngir mën am alal waaye itam na ci la mën nit ki mën a jaar ngir mën a économiser waaye itam aw yoon la woo xam ne bu ci nit ki jaaree relation bi war dox diggante mbokk ak mbokk dana dëgër waaye itam dana fondewu ngaayoo du ci am xiiroo du ci am su ko defee kon qaanunul irs fil islam bi maanaam attey l'islam ci miraas dafay tax njaboot gi gën a dëgër dafay tax société bi gën a dëgër waaye itam dafay tax société bi gën a nekk wenn wogg loolu nag li tax euh, njëriñ am di dëgëral société di dëgëral njaboot bi ci njëkk mooy dafay dëgëral almawadda ak alaaqa bayna al ab wa abnaihi wa wa afraadi usratihi ah, dana dëgëral diggante baay ak doom ak i soxna ak njaboot gi yëpp rek noonu ci dana dëgëral diggante bi ndax kat dana yëg ne moom mii kat li mu yellool jox nañ ko ko maanaam mbokkam faatuwut ñu jël alalam xañ ko ciram dana yëg loole waaw itam dana yëg ne moom mii kat kenn xañu ko dara dana yëg ne moom mii kat ah, li mu war jox nañ ko gëddaam ñaareel mooy dafay dimbali itam alqaanunul irs ci ñu mën a yaatal alal joo xam ne kenn ko moom téye woon ko alal jooju nag ñu yaatal ko ba kenn ku nekk jot ca wàllam ba mën a tëral ay projet waaw loola bokk na ci ngëneel yi nga xam ne moo maanaam euh, euh, euh, noonu am na ko ci lislaam bokk na ci itam Euh, noonu maysaar yi nga xam ne am na ko mooy sanco al afraad ala intaaj dafay pousser nit ki di soññi nit ki ngir muy góor di liggéey ngir mën a réaliser dara waaw ngir mën a réaliser dara nen ko ndax loola kat dafay tegtale ne ginnaaw nit ki bu fi faa bu fi jógee yaa war a jël alalam ah kooka da fonk kooka maanaam ki nga xam ne yow bu faatoo alalam yaa ko war a jël yaa ko war a doon kooka da nga ko fonk kooka da ko yéene jàmm kooka da ko yéene aw moo tax bu fekkente ne ki nga war a doon a lislaam la mooy da nga yàkkamti xam ne waroon naa ñëw te ñëw ba na ci maysaan yaatu na lool waaye xataayu jamono ji rek moo tax ñu mu nekk loo xam ne lu jur coow lu bare bare bari la waaw ah, lu jur coow lu bare bari la bi maanaa lu tax góor ak jigéen duñ tolloo ci ndono jur na coow lu bare bare bari ci lislaam maanaam ci société yi rawat na ci jamono yi nga xam ne jamono yàqu la nga xam ne ñi ñuy tuddee ay féministe wala ñuy tuddee ay droit des euh, féminines ak yeneen yu deme noonu ak ñi nga xam ne ay nañ di naan lislaam dafa jàng lu mu jox góor nangam te joxul jigéen nangam coow bari na ci waaye loolu bi ñu leeral mooy ci doxalinu suñu borom ak ci xikma suñu borom moo tax suñu borom tabaaraka wa taala ràññeetle diggante góor ak jigéen bokkuñu moo tax ci alxuraan ne walaysa dakaru kal unsa góor ak jigéen bokkuñu yemuñu waaw yemuñu ci bindin waaye yemuñu ci doxalin ndax am na liggéey yoo xam ne góor attanu ko maanaam jigéen attanu ko. góor rek la ko suñu borom tabaaraka wa taala di teg moo tax gis nga jigéen foo ko fekk dañ koy gàddu can giñ koy jox moom so laajuñ ko ci dara ah ndax jigéen bu juddoo ba ba muy majeur di am borom kër ba borom këram di jotee moom a yor am borom kër ba borom këram jotee moom dund ba daal di tuxu ci waajuram daal delluwaat ci ay jëkkëram gis kon jigéen can giñ koy jox xàq li mu doon ci miraas mi moom dara waru ko ci du dund du koddaay du dara léppam ko koy gàddul moo tax suñu borom tabaaraka wa taala wax ne ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisaa bimaa faddala allaahu ba'dahum anfaqu min amwaalihim kon loolu moo moo tax atte woo li nga xam ne suñu borom tabaaraka wa taala moo ko atte li yonent bi sallallahu alayhi wa tëral nga womatu ca jaar lépp ni ko suñ borom tërale ah loolu dafay tegtale ne yow mii kat sëñ sell na waaye su suñ borom tabaaraka wa taala tëral ne la dina nii laa bëgg a doxale nañ ma tërale ni jigéen na am nangam góor na am nangam ah nga daal di ko fay bàyyi ne ah loolu kat du ak maandu ak jeng la loolu mooy tegtale ne kon ak njulit ñàkk dëggu la waaw suñ borom tabaaraka wa taala wax ci alxuraan ne ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا أخذ الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم كن أتى سنة تبارك وتعالى بك أتى بنفي ليس لأحد أن يعقب على سيء قال به الله سبحانه وتعالى سنة تبارك وتعالى أتى بنفي أمر كتابة الواية وما ترك أتى بابا داري تبرر الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون والله يحكم لا بحق ولا حكمه su ko defee nag ginnaaw noonu la suñu borom tabaaraka taala tërale ne jigéen na am benn góor na am ñaar borom xam-xam ne layal nañ lu tax mën naa am day lu tax suñu borom doxale noonu yi mën naa am mbir yii bëgg a ñëw tax suñu borom ne goor na am ñaar jigéen am benn bi ci njëkk mooy góor moo ëpp kàttan ci jigéen ci mën a développer alal bi maanaam mën a alal ba mu dox bam gën a mën a jariñoo ba ñëpp mën caa jariñ te loolu mbir la moo xam nañ ko sax ci sàmm bi maanaam alal muy dox ñu di ko sàmm mu gën a bari loola dafa mel ne góor moo ëpp kàttan ci jigéen loola booy xool ci suñu réew mi rek loola jorut sori ndax fi ne jigéen mën naa dajale xaalis bu bare bare bare bare bare mën naa liggéey waaye nag conserver ko ba ndox dox fukki jigéen ñoo jël kenn na ko cay man lu tax mooy mën nañoo dajale ay millions benn bis ne ñu yàq ko ci ay xew dañuy jële koy ndima dañuy jël koy takay wala xew sax ñu ne lang ñu la ko ci tassare kon goor mu ëpp katan ci wala a réserver alal gën ko yok ba mu gën naam kon loola mbokk na ci laal man na am loola sun borom mo tax mu ëppale goor ci jigéen ñaanal ba moy goor mu ëppi aaji ci jigéen ci alal li alayhi min a'ba min aibaa in ndax ji góor moo ëpp wala mom la dépense war doom ñi ñi feebar doom yi feebar moo leen war a faj hmm? soxna yi feebar moo leen war a faj moo war a wutal jabar yi fi ñu dëkk bu dee day nuyee moo war a fay location bi moo war a wut dund bu dee ndox mi ñu naan moo ko war a dund ak la ci aju lépp hmm? moo war a wut koddaay ak ci aju yëpp kon góor moo ëpp aju ci jigéen ci wàllu alal jigéen moom ni la ko waxee woon dañ ko koy gàddul ci lislaam waaw jigéen cam gi ñu koy jox li ko ko may lislaam def loolu ko ci dara alal ji mu donn góor ji donn ñaar moom mu benn loolu mu donn lislaam def loolu ko ci dara néewu ko ci dundalal diw néewu ko ci fajal diw néewu ko ci defal nangam moom dañ koo yor rek góor moo ko yor ñetteel ba mooy li ma ko wax léegi annal mar'ata makfuulatun jigéen dañ koy gàddu foo ko fekk wa amma rajul fa huwa al mas'ulu an nafsihi wa man ya'uduhu góor nag moom moo gàddu boppam gàddaalu gàdduwaale ñim njaboote mooy gàddu yaayam bu màggatee mooy gàddu soxnaam mooy gàddu doomam bu jigéen ba ba muy sëy mooy gàddu rakkam bu góor maanaam uh, nangam nangam jigéen moom dañ koy gàddu góor nag moom lay gàddoo waaw ñeenteel bi mooy alali góor moom dañ koy dépensé alali jigéen moom dañ koy denc waaw lu mu lu mu def ko ci moom ni la ko waxoon léegi waaw góor yi mu doon bu doon ñaari junni jigéen doon benn junni jigéen moom dañ naan ko sa benn junni bii nga doon denc ko dara wóor la ci bu ci jëndu dépense bu ci faj bu ci jëndu ordonnance bu ci jëndu dàll bu ci jënd dara yow góor na sa ñaari junni yi nga doon yaa ci war a jënd ordonnance ci ku feebar yaa ci war a joxe dépense yaa ci war fay ndox yaa ci war a fay courant yaa ci war a fay njàngum gore yi yaa ci war a nangam yaa ci war a nangam ci lislaam kon gis nga alali góor lu ñuy dépensé alali jigéen nag moom day toog muy gën a dox juróomeel man mooy jigéen dafa am àq ci alali jëkkëram te góor amul àq ci alali jabaram ah, jigéen am na àq ci alali jëkkëram ñoo ko waxoon léegi ci jox ko ca waaye nag góor amul àq ci alali jabaram kon loolu rek lii tegtale ne kon lislaam lim tëral ne góor na am ñaar jigéen na am benn loola xel mu sell nangu na ko ginnaaw ba ko lislaam tëralee ba noppi kon gis nga lislaam ku maanu la ci jigéen moo ko jox gëddaam ndax la njëkk lislaam jigéen daf daa daj coono bu méttee méttee ko waxoon léegi la njëkk lislaam dawul am ci ndono dara ah bal li nekk sax jigéen ci boppam moom dañ ko daa doon marchandise la moo xam ne moom jigéen dañ ko daa doon waaw suñu njëkk lislaam jigéen marchandise la moo xam ne dañ ko daa teg fële di ko doon waxuma la alal waaye jigéen ci bopp njëkk lislaam lañ ko doon moo tax am na Abdullah ibnu Abbas wax ne ci wax suñu borom ñu wax ne yaa ayyuhal lazina aamanu laa yaxillu lakum an tarithuu nisaa karhan mu ne kaanu isaa maata rajul kaana awliyaa'uhu ahaqqu bi imra'atihi bu góor masaan faatu kii koy góor googu ñoo gën a yell ca soxna ca soxnaam sax loolu sax léeg-léeg da koy gis ci suñu aada yi ñu ne ah bu sa mag faatoo bàyyi fi soxna yaa war a doon soxna si ah. xam ne ci suñu aada euh, nga xam ne euh, xaw nañ koo laal ci ak jaahiliya ah, bu fekkente ne law saa d'accord ca loola maslaha tax na ak njaboot ga mënuñ ko fee bàyyi dem di sëyi faneen di sëñcaat faneen beneen famille te kon boobaa njaboot ga xis na fi am njaboot na bokk njaboot nekk genn bu fekkente ne loolu te góor ga ak jigéen ji ànd na ca te force amu ca ah loolu moom lislaam bi di wax dara ndax ndaw sa moo bëgg waaye amaa ne waa ji ku faat rek bu fi bàyyee sa sa sama bu faatu bu fi bàyyee soxna yaa war a doon soxna ah loolu moom lu ah. waaw lislaam nag moom moom moo yëkkatiwaat jigéen jox ko gëddaan tooñ gañ ko doon tooñ mu yëkkati tooñ googa hmm? mu ne ah góor ak jigéen nag da di buub buux la doo ci miiraas lay jaal nasibun mimma taraka alwalidaan wal aqrabuun wa li nisaai nasibun mimma taraka alwalidaan wal aqrabuun mimma qalla minhu aw kasura waaw wala ne comme loola mooy li leeral mbir ya ne lislaam jox na gëdd jigéen ñaara ñaara nga xam ne dañuy wax naan lislaam dafa néewal doole jigéen daf koo xañ yi def naan dañu ñàkk a jàngal lislaam baa boobu nag ñu ñàkk a maandu waaye lislaam moom ni yëkkatee jigéen Eh, eh, eh, da ngay daal di am rek moo tax boo demee ba jàng miraas ba xam xaalaat ak masaayil miraas kenn ñu ndikkee ci xam-xamu miraas da ngay daal di xam ne ñi njëkk ña ak nañ daa soofeele jigéen ak nit ñi nga xam ne ñu ngi topp seen ginnaaw ba la tolloo ni góor ak jigéen jàpp ne xam ne kat ñoom ñii kat seenum xel am na lu ci des benn ak xeq du ñu ngi ci ñoom baa nafa euh, jaahiliya ma ngi ci ñoom loolu la kon euh, loolu mooy tomb yi nga xam ne tënkoon nañ ko ngir fas yéene ko doon ko bëgg a leeralante ak yéen euh, xëy na jot gi ak nekk yeneen programme moo tax yaataluñu lool lool lool. Euh, ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal ñu dégg ak topp lu ci jub mbaaxu suñu borom tabaraka wa taala la lu ci dëng suñu néew xam ak suñu ñàkk fasaxa in illa lislaam axtara ma tawfiq illa billah wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu loolu kon loolu mooy ah, li nga xam ne andi woon nañ ko ci gàttal mais nag bu fekkente ne am na koo xam ne dafay am laaj yoo xam ne dafa aju ci mawduu bi wala mu aju ci xam-xamu mu yaar di sifa am ma rek incha allah ñu leeralal ko ci suñu kem kàttan incha allah ñaan suñu borom dafa ñu dégg topp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. waaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. suñu fay ñu ngi laa nuyu di la siyaara bu baax di nuyu waa alxaqu saabit nga xam ne dama jógee jumaa ji rek yónnee la message daal di tëdd ndege nelaw naa bu yàgg ñu ngi jégalu bu baax. macha allah di am kontaante xam naa dinañ ko topp par benn ba mu jeex incha allah yàlla balaa suba dinañ bu amee laaj dañ ko def di leen sant bu baax a baax nga doon ko def ci eh, <clears throat> jéego yi nga xam ne miraas def na ko ci jamono ceddo avant l'islam ñëw ba l'islam bi mu ñëwee changement yi nga xam ne soppi na ko ci miraas bi nga xam ne danañ ko defee ci ceddo démb. changement yoy ci am euh yi nga xamne ay tar la ay tanef la ci système miraasu l'islam ak lan lu waral euh xikma bi tax muy jox leg leg du ma wax sax toujours waaye leg leg mu jox jigéen ñaar wala góor mu jox ko ñent wala goor bu ñaar bu jigéen benn masalan lu tax léegi lislaam di def loolu yooyu point yu am solo la macha allah lu jërë xam la parce que eh, dañ ci am nañu bari ñi nga xam ne xamuñ dañuy def it laaxal loolu daal di lislaam waaraa ni na def jigéen te fekk na jigéen moom eh, bu àndeek frère am doon na am benn jëkkër euh, magam am ñaar bu paree fekkee amul jëkkër bu paree ci kër gi lay toog maga ji ñaar ko waaw bu ko defee nag euh, yi mu demee boo euh, boo jàppee ne jigéen je <clears throat> dañ koo jox lu tuuti fekk nag moom moo ëppale parce que mu jël benn mbeegal dem jëndee or mbeegal magam yor ko su fekkee am na jëkkër it jël ji xëy benn boobu jëndee or dem jëkkëram yor ko bon yor ki nga xam ne moom la yàlla def ci moom responsabilité yor bon mooy nga xam ne mooy góor soit mu jëkkër wala muy mag di kilifa gi kooku mooy moo koy moo ko bu baax a baax yàlla li nga xam ne moo jënd moo bind moo yor moo ko mën a defar sharia boo xam ne sharia bu jub la eh, yàlla shariam yëpp rushdu la jub la Euh, lu jaar ci yoon la ku xam xam ko xamut it xamoo boo taxawee play di wax rek parce que jànguloo jegewoo ko mel ni sëñ ma fari mu leeral la ci masalan ci ci euh, côté ngi sant bu baax di gërëm macha allah buñ ko toppee incha allah danañ ci defaat yi ne euh, taxaw seetlu salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu raq sab ñu leen di nuyu ñu nuyu ma fari waaw déglu nañ audio yi ba mu jeex macha allah eh, am na solo lool commencé ngoo ca eh, ya naka lañ laan doon ne ca yeneen xeet yi nga xam ne ñoo waroon sufu jasiratul arab nañ laan doonale kii di tànn ku la neex nga féetale ko alal ja kii ñii di tànn ki nga xam ne moo ci gën a ndaw ñu jox ko alal ja ñii di tànn nga xam ne moo ci gën a mag ñu féetloog alal ja lislaam yu ñëwee def ne képp koo xam ne am nga lu la tàkkale ak kii fi jógee ko ci wàllu njuréel boo faatoo sa cër mooy lii moo xam njuréel la moo xam mbirum sëy la moo xam ak mbokkoo la um doomu baay ak wala doomu ndey kenn ku ci nekk kañ nga war a doon ak booy doon lim ngay doone macha allah lu leer la ci alquran e, lu am solo la macha allah détaillé nga yëpp. waaw gannaaw loolu moo amoon e, ñaari laaj yu mu ñu bëggoon a dugal mooy ne e, ci yan xaala ci la jigéen ak góor di doon di xemale seen ndonoy xem ci yan kaax ci la amee ñaareel ba mooy kañ la jigéen di donn ëppale góor ci yan xalaat mooy ñëw jigéen donn lu ëpp li nga xam ne moom la góor di donn macha allah ñu ngi lay sant di la gërëmaat ci taxawaay ak leeral yi am na solo lool macha allah yal na yàlla fay la yokk xam-xam bi yokk leer la yokk maqaama bi macha allah jërëjëf ñu lay baax di la gërëm. waaw bisimilah ala sunnat rasulillah seydna mawlana muhammadin wa man wala fadar imam nuyu la ziyaare ginnaaw bi ñu di rafetlu bu baax taaliixaat yi ak taaqibaat yi am na xam ne jigéen moo góor ñoo koy tolloo miraas mën naa doon ci ñetti anam anam bu njëkk ay al lil ummi ak axawaat lil ummi bi maanaam ay doomi nday ay doomi nday ñoom buñ ci dajee ak jigéen ñooy tolloo ndono kon daal ko faatu woon tey bàyyi mbokk mu jigéen mu mbokkal ndey ak mbokk mu góor mu mbokkal ndey ñoom ñooy tolloo la ñuy ñoom sulus la ñuy doon amul góor ak jigéen ñoo cee tolloo. ñaareel bi mooy masala bi ñuy tuddee masala mustarika wala masala mustaraka nga xam ne mbokki ndey ya dañ daan doon dañoo waroon a doon sulus mbokki ndey ak bàyyi doon xaar des te lañ doon xaar desut ñu mara daan. ñu ne comme que suñu bàyyi moo ñu boole te moo tax ñu mën a daam te ñii ñoom mbay rek lañ bokk ak néew bi bëgg a doon kon te ñoom man ne ñun bokkuñ ñoom moom mbay mbay rek lañ bokk su ko defee ñu séddoo alal ja bu boobaa itam góor ak jigéen ñoo cee tolloo ci noonu am mas al mustarik ba tey bokk na fii góor ak jigéen di tolloo ndono mooy yaay ak baay léeg-léeg ñu tolloo ci ab sudus masalan tey ku faatoon bàyyi fi doom bu góor. yaay sudus lay am mbaay itam sudus lay am foofa itam yaay ak baay ñoo fay toll ama fi góor di ëpplee ci jigéen di ëpplee góor nag mën naa nekk ci calcul yi mën naa doon itam masalan ku faatu woon bàyyi fi jëfa jëkkër ak doom bu jigéen jëkkër xam nga bon lay doon doom bu jigéen jël ni jël ni si xam nga foofu kon jigéen moo fa góor ndax mel ne alal ji junni la jëkkër ji benn junni am doom bu jigéen am ñaari junni naka noonu itam bintul ibni lu ko daje woon ak azawju moom itam ngay wax zaw yi jël nisif da day jël rubon bintul ibni jël nisif su dee yéen nag ay calcul la mooy mën na am jigéen ñi gën a néew góor ñi gën a bari kon bu boobaa jigéen ñi gën a jëlal masalan tey ku faatu woon doom bu jigéen ak ay mbokk yu bare bare yu mbokkal nday bare yu mbokk yu mbokkal baay doom bu jigéen mooy jël misib genn wàll la des mbokk yooyu séddoo ko bu doon ñetti jël bu doon ñaari junni la doom bu jigéen mooy jël benn junni la bu doon ñetti mbokk ñeent bokk jël noonu ñu góor ñu ñëw benn junni la ne leen séddoo leen ko kon xam ngeen foofu doom bu jigéen ba tey moo leen ëpp na waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu Sam Sabaa ñu ngi ziar baax di nuyu waa kër gi di ñaan suñu borom defal leen jàmm waaw ku jógee bàyyi fi ku waatu bàyyi fi soxna bàyyi fi yaay bàyyi fi mbokku ndey ak mbokki ndey bàyyi déedéet yaay sulusu boppam mbokki ndey seen sulusu bopp jabar rebon lay doon li des mbokki daal di koy séddoo yaay day jël sulusu boppam mbokki day jël seen sulusu bopp kenn ku nekk sa waa la jël waaye duñ jël yaay du bokk mbokki seen sulus